saa xel mi daf maa yedd ma rus jaaxle ndaxte dane ma war ngaa njukkal muxaddima tul xidma way seen ndogu yi ma ne ko am naa fukki xat yoo xam ne maa ngi wuute kat ngir maa ngi woore àll kat damaa laboon ci tukki yi moo tax ma dikk waxuma wante na xaadim cuquma sa bii bayit soññaale ma ma daal di sot xalima yi xaadim si la moo ma yëngal te man sëriñ bee may yekkal xaadim si la moo may moo ma yëngal te man sëriñ bee lay nara xew moo ma yekkal ca ndabi saa xel xikma yi jaaraama gaa ren rafetal ngeen xidma kaamil yi mat ngeen xatmu yi mat jàng ngeen seen jukki yi su ngeen yemoon ci ndogo yi képp mu neex lool dongo yi ak gaa yu baax yu dëgg yi ak sunu gan yeeg dëkk yi sëñ Bàmba ni mu fonki jumaa ji lim ci wóolu man damaa defe ne luñ def war na ma caa bég du tànn cuune yi Cheikh Moustapha lu mu tàmbali sëñ Fallu daal koy àggale Cheikh Abdoulaye ñëw yàkkali ngeen topp yéen seen dëgg yi képp ku leen dox di sikkal ren sëñ bu mag bay leen sagal sëñ Muntaxa sagul sigil doo rus ci gaa yi xidma yi loo leen digal def nañ ko ren yàlla nañ jëfaat lu raw déwén neex yàlla neex sëñ béeg yeneen nañ topp rek sa sa tànk yi Seex Muntaxa lu mu leen digal yéen lépp lépp ngeen dëggal lu mu digle yàllaa ko dogal day sedd xol yi guy jumaa ji mooy sum rootukaay baqiya mooy sum rawtukaay ngeen saytu lii ak lee sawaay mooy leen ci ñaar yi ngeen téye ren bégle ngeen ba xol yi tooy xuppaate ngeen ba jupp jooy seytaane ren yéen a ko njooy waxtaan yi daas na jikko yi waxtaan yi daas na jikko yi gannaaw sëriñ bi moo ma may ba fu ma diiree dama mooy day jëm ci xol yi sama woy yiw yu ne day jëm tàbbee ba ma déggee seen turu rek laa xam seen meññet di wàcc suñ béeg jumaay jey seen dorog faaliwu leen koomi jayi muxaddamatul xidma mooy la sëñ bi jiital ci liggéey kon ñii ñu jiital ñuy liggéey ñooy jiiti tey daayira yi muxaddamatul xidma nag muxaddamatul xidma nag mooy jiite taggi sëñ bi nag aw turandoo day niru nag kañ ko tudde ci jikko yi moo tax ba xidma jiitu na man ca kanam ren sànni na karwaas ga fas ya dëpp na jël na drapeau ndogo yi xam naa ni roy du mel ni piir am soow mu am ndax yit du beer ajjuma moo gën fuuf di béer ren xidma mooy ajjuma yi may nañ ma formaas giriyeer naan naa basaab naan fa jinjeer ren moom ku leen di sànni xeer nay nen yu ànd ak pëddiya yàlla na ngeen mucc ci cat ngir gaynde sax dees na ko jàpp yàlla na coow yii seeni cat ngeen àgg na caagu ya caako ya yàlla na ngeen mucc ci cat ngir gaynde sax dees na ko jàpp yàlla na coow yii seeni njot ngeen àgg nag ca àgg àgg ya xam naa bu yër jëf juñ nangu seen jëf yi ren yëpp a nangu te sëñ bi moom kat du nangu kenn di nangu seen xidma yi kon takku leen ku leen tukku te too këram nag ni tugg te seen liggéey bii nag tëkku day xol ba day xul ba sonn rek bàyyi du leen mën a dara dara ngir sëñ bi moom ku def dara xam na balay fay it dara nan rafetal rek kàddu yi Lamine taxaw lu ba déwén déwén ji ñëw na dàq ren yàlla na fekk yi déwén ba ndoguwaat ci ndogu yi ñaanal commerçant yi boo xam ne def na ci yitteem balaa déwén yàlla na tiim képp ku jaay ci marché yi yéen waa bitim réew liggéey bi yéen am ngeen ci ndam def ngeen ci yéen lu am xorom sëriñ bi yàlla leen téye waj bu laal xayra minal jihaad yi mooy li leen digal ngeen daal di jël seen sas yi dal di bay te yéen du leen tàyyi ci barke ñaanal commerçant yi itam boo xam ne daf ñu ci téen balaa déwén yàlla nu tiim képp ku jaay ci marché yi ci barki sëñ bu mag bi ma may xel mu leer te a ma baa gis nga ren mu xaddama tul xidma jox na sart yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu